bàyyi mu ne yéen jigéen ñi wutu doomi góor yi ñaanal leen tudd muqaddam yi ak indi doomi jigéen ñi ne leen bu leen kenn dem des bu kenn dem bàyyi leen da ngeen rëj rëj loo ci am ak kowe rëj rëj nag waxeewu ko nag ay sañ-seeki feeñal sañ-see naan bàyyee ma jur bu ma jur bu doyoon naa ne alaaji Abdoulaye ma jur ma def dara waaye dafa ba ngeen rëj rëj loo daal kowe ku mën a xàppatee ñeme feeñee loolu loolu affaire bi Mbaye dafa bëggoon jigéen ñi trop doon na wax ne moom doomam yu jigéen yëpp góor yi sax ndax booba fàtt bu laal wax moo doom na ko fàtt bu am na doom doom bu góor ki njëkk a ñëw maa jën fàtte na ko fàtt bu am na doom jigéen mu ne ko jigéen yow lu tax nga ne ma góor